رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله baay ne waxtu wu nekk maa ngi am ay xaal yu may dund xaal yépp xaal yu ràññeeku la ci xaali nit yàlla yi xaali kuy jëm ci yàlla xaali ku xolam sell ba nga xam ne dara nekk fa lu may yàlla xaal boobu ku ko am waxtu woo mën a nekk waxtu nangu ñaan la mu ne waaye sama xaal yépp bi ci gën mooy xaal bi may taggee yonent bi sallallahu alayhi wa nag ñu nekk ci bésam yi nga xam ne ci lay taggee yonent bi ma ne ci biir xaal yooyu ci taggam yonentu dem na ba ci biir mu julli ci yonent bi alayhi salaatullahi wa salaamuhu biha yastafi man jaaba naxwi lmafawida nee na gannaaw julli ci yonent bi mune ne sama julli yoy ci yonentu ci la yalla di tanne kep ko xamne dag nga àll yi ñëw ci man maa ngi koy wax suñu mbokk gambien yi legi di len wax ne lool la len di bëggalee yow tim ak ñi nga and ak lool lañ di waye lool tim motax ñu bëgg président diko gis fi ba li nga wax tim ne liñ sembu ci Medina ak kaolax ak ci liggey lepp président ci bàyyi xel dana ko mottali ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam ci loolu ndax ndam boobu ndam du ko féetee kaw ndax bàyyi medinaam gi lépp lu mu fi bëgg dana am ndax moo ko waxoon bi xubbi rasulillahi taalu madinati ala almudni wal amsaari wal xayru yaxdusu بحب رسول الله سادت عشيرتي ونسلي ومن يرعى زمامي ويمكس بحب رسول الله تعلو منارتي منارات قوم أهدك الدهر ينكث nee na ci mbëggeel gi ma am ci yonent bi sama medina gii dana kawe mboolem medina ci mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama medina gii waxtu nekk xiiw rek moo fi xew ci mbëggeel yonent bi sama ngirt ak képp koo xam ne yaa ngi sàmm sama kóllëre ci ngay kawee ci mbëggeel yonent bi sama manaari jumaa ji nga xam ne président bi mu fi ñëwee ñi koy teeru muy campagne wax na ne danaa ko mottali mu ne manaar yooyu ci lay kawee kon wér nañu ne manaar yi dana kawe ñu ngi fàttali président lam ca waxoon ndax lu yàlla def ba pare ku yàlla baaxee yàlla yàlla di dimbale pour mu def loolu ñu ngi koy fàttali loolu te xam nañ ne fàttewu ko te xam nañ ne bu ñëwoon fii dana ci wax waaye alquran moo ñu wax ne fa dakkir fa inna fa tanfaul muminin na nga fàttali fàttali dana jëriñ muy gën ne dana defar yoon wi jëm Kaolack tegaloon naa ko ci ba ma koy tontu mu ne ko président gis nga yoon wi nga xam ne ci Cheikh Ibrahim la jëm ku ko defar dana am ku la ñaanal koo xam ne foogoon ne yoonam jotee nga ak moom dara تنيان يويو أمون نكو تجامونا جوجو السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله